ndeysaan ñaari mbër yaa ngi ci de da koy gagné de da koy gagné de avertissement gars yi d'accord wuñ de arbitre gars yi d'accord wuñoo ak yow botti na ko xale ba bañ nu atte na leen lu xew gaa yaa ngi yuxu bi de public bi d'accord uñu ak arbitre bi de jëli ko xale bi plaqué ba ba dafa sori Cheikh Diagne mi daa mel ni neexalul kenn li sol na ko dëbb na ko sol dëbb na ko sol ndax day laal wala day wañ dëbb na ko sol taxaw dina sol ba léegi eh li mooyul xale bi. Libidor mooyul xale bi Libidor mooytul xale bi Libidor xale bi xam na ne Libidor bu ngeen tolloo fi day joué ci sa kaw pour jox la avertissement moo tax nag Cheikh bañ na ko lool du fi amee tey amit lu xew léegi loo bëgg a def arbitre daa mënoon ñu bëre nag xale bi wéyal na ko mu ngi ko bëgg a kàl ca war ay prise su bëre moom gis nga dóor na benn sënam ca suuf moom Cheikh. hey. kii dey. dóor tànk xale bi bañ lu xew déedéet arbitre d'accord uñu arbitre da nga ee eh, xool public bi gars yi d'accord uñu arbitre kenn d'accord uñu ak yow ah way ah way jogal jël lii waay booy ah. arbitre bi yàq na làmb ji boo bëggee dégg dëgg parce que li mu àtte moom la public bi d'accordul Mansour gars yi tas nañu làmb ji ah way parce que nag boo bëggee dégg dëgg man sama gis-gis bu gàt Bukar Bukar arbitre bi li mu def nii garaaw na de. Babacar xam nga mooy li may wax gis nga arbitre yi. waaw des fois dañuy xoolaat li ah, arbitre warul di distrait arbitre day concentré wu si combat. on a rien contre Libidor waaye Modou Diamteri ku xool xam ne moom mooy def action yi ñu def. vraiment na ko avertissement boo xamante ni tey tegu ko fenn qu'on la vérité. vraiment deuxième bi. Ah. boo seetloo bi ñu defaatee accrochage ñetti action yi ñu def yëpp kon nag yaakaar naa ne tey avertissement amul warul woon tey muy jël avertissement di ko jox Modou Diam Terry gis nga lépp gis nga gis nga public bi ni ñu réagir rek ça veut dire que amateurs yi si nu mu si nu mu arbitré ay décision kon arbitre yi lamin ay nit kese lañ ay nit kese lañ mais nañuy xoolaat seen i décision yow war nga xam ne man mii kat maa ngi def erreur kon yaakaar naa ne décision bi mu jël nii gis nga moo yàq lamb ji. parce que man moom vraiment avertissement bi mu ko mujjee jox d' ma ci. kenn d' si. parce que Modou Diam mu ngi doon def ay action bëre. moo bëre moo def action li mu doon rek ko li mu ëpp doole féete ko féete ko kaw ëpp ko expérience moo tax mu koy seetaan waaye arbitre bi moom tey moom moo moo def erreur de bu lamb ji yàqoo moom la de kaay ana arbitre bi ma wari ko kaay. ana arbitre bi ana arbitre bi moom. ana arbitrage ana arbitre bi déet waay bàyyi leen arbitre yi. arbitre yaa ngi nii toog. Mansour. Eh! Mathia problème bi non parce que public bi dañoo d' accord te yow arbitre bu mag nga am na tax mënoo réagir. gars yi d' accord de. arbitre bee yàq lam ji mënoo kii di bëre kii bëre wut nga koy jox victoire arbitre bee ko yàq nanu waxante dégg na arbitre yi bàyyi li def seesu laa yenu nii di bañ ñu waxaañ xool police yi ñu ngi leen Macha moom nee na du wax. kuy ne di na du wax. ne na ne yaa ko tey xool xam ne ni yow bëre woo sonn xool. Macha ngi na cel. waa mais moom yàgg na si làmb. ah Macha. lii moom jaaxal yoo xam naa ne. mais réaction gars yi. réaction gars yi loo ci wax. gars yi dañuy réagir nii. no ah, waa lii moom lan la. lii de ëpp naa tàkk moom. lii lan la nga ne lii lan masen la police yi ëpp nañoo sànni lacrymogène de bon je suis mal placé pour wax ci dëgg-dëgg comprendre nga je suis mal placé pour wax ci quoi mais j'espère que ñi fi nekk yëpp mu nañ jugel seen bopp rawatina yéen ci yéen yéen médias yi mais man je mal placé pour wax ci parce que mënu mënu ma critiquer arbitre xam nga mënu ma mënu ma critiquer amateur tamit donc mais en waaw waaw mais mais mooy li ma la rek je mal placé pour wax si c'est-à-dire fii ku nekk mun nga jugel sa bopp comprendre mais ku ñëpp tufli nga tooy dégg ngeen bu baax li ma wax ku ñëpp tufli nga tooy foofu laa mën a pour le moment waaw. waaw tey la final coupe du monde comprendre nga final bi commencé 15 heures ba presque 18 heures kon sant yàlla bu baax a baax. amateur maa ngi leen di jaajëfal bu baax bu leen neexoon tamit ñu toog seen kër comprendre nga ñu leen di sant di leen gërëm bu baax baax ñu wax di leen wax ne ñu ngi seen ginnaaw lu ñu bëgg rek loolu la ñuy def sa prochaine journée mais lii nii rafetlu wuñ ko buñ sañoon lamb yi dañ koy bëgg ba mu jeex di le meilleur gagne comprendre nga te lii boo xoolee bëgg lu fi am ko comme bu amee rek ku nekk war nga war nga assumer sa responsabilité quoi man li ma wax mooy tëgg lamb organisation bi amul benn faay gis ngeen sécurité bi gis ngeen lépp comprendre nga kon bu ñu débëree ba demi final mu demee nii ku nekk dañ si téye responsabilité rek ku nekk mooy loolu. sa prochaine journée kañ la. waaye il faut que ñu toogaat xalaataat toogaat réfléchiraat comprendre nga il faut que ñu xoolaat parce que organiser fii dafa métti quoi dafa dafa dafa métti trop comprendre nga ay promoteur lañ xam nga mais organiser fii dafa métti moo tax il faut que ñuy xoolaat di ko xam nga lépp a ngi dépend ci stade bi rek parce que fii liggéey bi dafa métti. ñu ngi tëgg làmb ñu ngi fay mbëri yi xam nga ñu ngi fay wéykat ñu ngi fay tëggkat comprendre nga mais dafa métti suñu côté te amuñ jàppale bañ jàppale maam mooy sponsor bi mooy mooy mooy Tampico King comprendre nga lépp lu ñuy génne suñu poche dañuy génne dañuy dépenser ba dañuy jeexal tàkk comprendre nga kon foog ñu toogaat xoolaat quoi parce que organiser dafa dafa métti ñu ngi ñu ay bailleur lañ ñu ngi fay mbëri yi ñu ngi fay wéykat ñu ngi fay tëggkat jaaykatu café bi mu ngi mu ciy gis boppam di bi mu ngi ciy gis boppam borom chaise mu ngi ciy gis boppam est-ce que mu ah, est-ce que ñun ñu ngi ciy gis suñu bopp parce que tëgg lamb mu neex gars yi kontaan rek ça suffit pas suñu bopp bu baax a baax te dafa jot nag gars yi jàppale ñu parce que boo xoolee ku mun a tëgg un million cinq cent un mois nga ñëwaat deux million dix vingt vingt et un jours nga ñëwaat deux millions jàmbaar nga buñ neexoon jël suñu xaalis dugal suñu poche nekk su si li ñu nekk mais bëgg a jàppale a jàppale lamb moo tax ñu koy def nekkul liñ ciy gagné de yow yow mos nga tëgg làmb saa waay mos na tëgg làmb li ñuy am fii nekkul dañ fi gagné ay millions non non non mais yow jàpp nañ ne war nañ ci mën a jàpp bi saison bi si yëbale ñaata journée tëgg waaw ñaata promoteur ñoo ko tëgg ñaar ñetti promoteur ngay kii ngay ngay tudd sawaay toog sa kër liggéey waaj toog sa kër dafay dafa neex nga toog ba dimanche 17h nga sangu ba set ñëw dagg sa billet 3 wala 5000 dafa yomb te mun nañ ko comprendre nga bu ñu neexoon tamit doxalee noonu. mais loolu doxalu ak réew réew yow réew ab réew kii day jàpp fee kay jàpp fee kay jàpp fee ñun ñëpp ñu demandoo waaw te ñu réew yi ñoo ko mën a doxal mais lii day découragé loo lii neexul ci xol neexul ci xool te tegul ci yoon tamit c'est-à-dire mooy li ma la wax njëm je suis mal placé pour wax parce que man du ma mos a del ci amateurs yi xam nga lu tax parce que amateurs ils sont disciplinés dañoo am yar bu ñu fippoo rek yaa am na yaa où le bas blesse quoi yaa quelque chose quoi maintenant nag damay bàyyi euh, CNG yebal na fi ay la sécurité était là dañuy cité responsable ku nekk lii sa responsabilité mooy lu nga jël ko ci waa teewaayu Reug Reug l'essentiel est que ñun ñemewuñ dagg benn billet te sécurité taxawul comprendre nga fi may waxee ñun promoteur bu bu yeboo sax mille personnes taxaw ci ginnaaw mais tant que sécurité nekku fi duñ dagg billet kon xam nga ñun bëgg nañ lu wóor comprendre nga léegi nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp. mais teewaayu Reug Reug. yaa ko invité wala. non surprise la moi je mens pas ni ngeen ci amee mbetteel noonu laa ci amee mbetteel en toute sincérité waaw mais kontaan naa ci bu baax tamit di ko jaajëfal ba may commencé tëgg làmb def naa lu nekk pour mu bëri sama làmb fekk moment bi may ñëw fekk mu ngi mu ngi décroché comprendre léegi kon su defalee honneur journée bu toll nii mu ñëw def surprise dama ko jaajëfal bu baax a baax di la jaajëfal les arènes di jaajëfal li TV bu kar sama waay comprendre di leen jaajëfal bu baax parce que dëgg-dëgg gis nañ gis gis nañ taxawaay bi quoi bu ñu amee làmb da ngay ñuy gunge ci promotion bi ci publicité bi ba keroog bi di jot bés bu jotee tamit doo leen ménager aucun effort pour que euh, yëf réussir te du dërëm bu ñu leen jox joxuma la dërëm sa waay joxuma ko dërëm Lutte TV joxuma leen dërëm Lamine TV Zambro TV biir arène la puissance joxuma si kenn dërëm comprendre te bu leen neexoon tamit ngeen toog croiser les bara ba le jour ji ngeen dugg filmer dem seen yoon mais bu jàppee bés da ngeen jàpp ci promotion bi di ko promouvoir di ko promouvoir ba gis nga tey boo xoolee carte ren ak carte daaw am na différence ah, te jàpp ngeen si bu baax a baax je peux dire que ne quatre-vingt pour cent yéen la parce que li ma daan def rek laa doon def mooy génne sama xaalis bu fay woykat fay tëggkat loolu rek laa kon def mais seen appui moo tax tey jii nii lamb ji mu mel nii c'était pas évident de tey final coupe du monde la c'était pas évident ñu ngi sant yàlla bu baax maa ngi leen di gërëm di leen jaajëfal bu baax sama xol sedd